bu dee sëy bi dëgg la nekkul tournage dinaa leen ñaanal sëy bu barkeel lii moo tax man célébrité yi nekk en France wala en Italie dama leen respecté dama leen nawloo parce que ñoom dañoo respecté seeni fëlaw xam nga nit boo siiwee moo ma too sa bopp parce que Fama Thioune mi gis naa ne mu ngi bàkkaarloo ñu bari parce que ñun ñi benn ci man xaw woon ne Fama Thioune jógee na kër Kumba Gawla gi mu doon sëy yëguñ divorce même bu nekkee da doon sëy yàlla weddi waroon na mën a xamal nit ñi ne leen man nekkatuma ci boomu sëy pour ñu baña a dafa am solo parce que ñun ñun dañoo dañoo tàmm ñëw ñu commentaire ci. am na ñu naan tasagul ñi naan tas na naan bu tasee yàggul kon bu nekkee ne boo gos bi takk na ko mu nekk dëgg munoon na teel a ci page am que man yàlla weddi na. ak façon bi ñu koy waxee bu loolu jàllee xale moo takk xale pas de critique pas de amalgame dañ leen di ñaanal yàlla euh, euh, may leen njaboot gu barkeel parce que nag boo góos moo takk jongoma kat ziga ah, Fama Thioune ku ne xam na ne jigéen la boo xam ne xale góor yu bari bàyyi woon nañ ko xel man personnellement man dama ko bëggoon lool ndax nag euh, dëgg neexul mais dafa jong